tabax yi mu ne yéen a ngi tabax loo xam ne du ngeen ca dëkk nga gis ne kon euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne aksiru min zikri hazimi lazat bari leen di fàttaliku kii dagg bànneex yi biig am na ñu bëri reeruñ mm-hmm. bi ñu leen ne sëriñ bi génn na àdduna ngir dee day dagg bànneex bu ñee la diw faatu na bu dee bu dee ku la jege woon la rek sa appati day dagg léegi nag euh, benn boroom xam-xam am lum wax lu rey mu ne isnaani laa tansahuma mm-hmm. wasnaani kun fihima mulaaziman nisyaani mm-hmm. allaha wal mawta zkuran wansa ladayka lixsaana minka wal isaata ilayk mm-hmm. ñaar fàtte leen waaye ñaar bu leen fàtte ñaar yi ngay fàtte mooy lépp lu baax loo def dee ko fàtte ndax bés boo fàttalikoo ne julli nga julli yu bëri woor nga woor yu bëri jàng alquran yu bëri da nga jàpp ne dara nga di xuggaliku te mën naa am loolu yàlla nangu kon boo ci wéeroo foo kon lu baax loo def rek na ko fàtte di fàttaliku jëf ju baax du mandargam texe waaye lu bon luñ la def bu la nit defee lu bon mbaa mu wax la lu bon bul ko fàttaliku ndax wolof njaay nee na ku fàttaliku soxor waaye del fàtte lépp lu bon luñ la def mbaa ñu wax la ko ndax nga bañ a jéem a fayu ndax man laa yar xamu laa yurxamu ku dut yërëmaate duñ la yërëm te itam man xuusiba uqiba yow tooñ nañ la nga bañ a baale mais am na koo tooñ koo xam ne bu la baalut du baax te moo di yàlla te nag boo baalee ki la tooñ tooñ yi nga tooñ yàlla yàlla mën na la koo baax moo tax ñu bëgg nit lu bon luñ ko def mu di ko fàtte waaye nag yàlla ak dee mu ne foo tollu dee leen fàttali gis nga oustaz Mamor mm-hmm. bëri na njombe gu nit di def ci dundam ci lu bon mbaa lu ñaaw dara taxut mu def ko lu dul yaakaar a fekki déwén mbaa jàpp ne dese na fukki at ci kanam mais nit ku mu wéroon ne ñaari at la dese ci kaw suuf tamul leer ko ne ñaari at yii du ko paase balaa ñaari at yaa jot dana nekkaat waliyu yàlla seytaane nag bu bëggee nax nit mbaa mu wor ko da koy gudduloo da koy yaakaarloo gudd fan moo tax bunt boobu suufiyanke yi dañ ci daan yee nit ñi bu baax yonentu yàlla muhammad mi imaamu diine ji sax wax na ko ci benn xadisu ibnu umar kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiru sabil nekkal ci àdduna mel ni étranger bu ñëw ci dëkk xamoo fa kenn déggoo làkk bi xamoo yoon yi xam nga dangay moytu bala ngaa toj kaas ñu yóbbu la kasu mu ne it wala nga mel ni koo xam ne day tukki xam nga kuy tukki doo seet néeg bu sedd wala kii ndax boo yéexee rek avion bi dem bàyyi la mu ne boo nekkee ci àdduna melal noonu abdullah ibnu omar daan wax ne boo xëyee bul séentu ne ngoon dana la fi fekk bu ngoonee bul séentu ne bët set dana la fi fekk képp ku amee xaal boobu di dunde noonu jël dee teg ko ci kanamam danga moytu lu bëri da nga jomblu lu bari danga góor góorlu itam ci lépp loo xam ne war nga ko amal ndax bàyyi daana wax ne ña xaar ñëpp dee nañ te defuñ dara kon lépp loo bëgg a def rek soobu ca ndimbalal yàlla fekk la ca e, jamono nag tollu nañ ci jamonoy waba mbas sëñ Ousmane Ndiaye radiyallahu anhu kenn la ci kàngam yi àndoon ak baay mos naa ñëw kër ma kànj ab dëj ka woon at ma mbas am mu daal ne gis ngeen kii de faatu na te dara jotu ko waaye nit ñi dañuy jàpp ne mbas mee ko rey mu ne man ren ci laa waroon a wuy ji sama boroom waaye damaa ñaan yàlla moom bàyyi ma ba déwén ndax ku dee ci atu mbas dañuy jàpp ne mbas maa la rey kon li ne ci jamono tey jamonoy mbas la mbas mi nag lenn rekk a ci nekk moo di yàlla sun boroom moom mooy wax ak jaamam yi ci lisaanul xaal def te jallil qahr wal azama wal kibriya di def def te jalli boo xam ne dafay feeñal not gi mu not jaam ñi comme ni mu ko waxe limanil mulkul yowm lillahi alwaxidi alqahar nga xam ne mu ngi wone ne moom yàlla mooy ki wéetoo nguur te moo kenn te mooy aju not loolu rek lay woon jaamam yi ci lii nga xam ne maanaaha ay waa xew na ci àdduna ndax boo seetantale li xew gën a am doole ci àdduna muy Amérique muy Angleterre muy dégg nga Allemagne muy France muy Italie muy euh, euh, euh, kii Espagne mu Israël ba biir Arabie Saoudi ñooñu la mbir mi gën a fitnaal gën leen a sonal daanaka ñun sax daf ñoo tisati rek mais ñooñu dëgg-dëgg ñoo ci gën a loru bu fekkoon ne cet la walla sécurité walla santé walla xam-xam walla alal ñooñu kon mbas mi du fa yegg waaye gis nga ni ko yàlla defee mu ñëw te kenn manu ci dara ñëpp di daw ñëpp di moytu kon yàlla kat wane na dooleem wane na kàttanam léegi nag lan moo doon waru gar bi lan moo doon waru gar bi mooy kilifay àdduna bi buur yi sëriñ su mag si borom alal yi ñépp dal di sol mbubum toroxlu tuubal yàlla jéggulu yàlla gestu way new ju doole yi dimbale leen ñépp xoolaat seen bopp defaraat seen toogaay bu loolu amoon insha allahu léegi nga gis yàlla teggi mbas mi amul nag benn solution boo xam ne dana régle mbir mi lu dul loolu ndax suñ borom ak ñuy wax ci alquran falawla kanat qaryatun amanat آمنت فنفعها illa إلا قوم يونس amanu kashafna anhum alazaba wa matta'nahum ila حين maanaa nit yonentu yàlla yunus bi nga xam ne balaa ñëw na ba sës war a wàcc yonentu yàlla yunus jàpp ne balaa bi day ñëw moom mu gàddaay te yàlla joxu ko ndigal ba ca la amee nattu ba jën wa wann ko mais waa dëkkam ba ca mawsil ci iraq ñoom lan lañ def dañu wëlbatiku ne ana yunus ñu ne dem na ki ko gënoon a jege ne leen ah Yunus de dem na waaye waxoon nañu ne boroomam bi muy jaamu du tukki du fàddu du nelaw dénga nga te ku jege la te lépp lu waay wax mu dégg ko buuru dëkk ba ak borom alal ya ak kilifa ya ñoom ñëpp ñu sol ay sagar génn ca ëtt ba sa loxo suuf tàllal seen ay loxo ne yow yàlla Yunus yow borom asamaan yow borom suuf ñu ngi tuub di jéggulu jéggal ñu di jooy di toroxlu naka lañ def loolu fekk niiru mbugal mi ñëw na ba tiim leen ñuul kukk tàng jër nga xam ne bu wàccoon rek dëkk ba day seey mais ba ñu toroxloo rek yàlla daal di yëkkati mbugal ma lii yàlla nettali nañ ko ci alquran kon solution bii fii ñu ngi koy jiiñ lii ñu ngi koy jiiñ laa jël ay gel jël ay kii lu euh, mu yi ñuy def ci jël ay masque dégg nga euh, di daawanteeg jël loolu yëpp du dindi mbir mi du régler problème bi problème bi li koy regle mooy daay gi ki ko taal moo ko mën a fay te kenn taalu ko kudut yàlla kon yàlla moo ko mën a fay jërëjëf euh, Cheikh Aboubacry Ba yàlla moo ko taal <laughs> yàlla moo ko mën a fay dëgg la ndax boo xoolee jamono ji ni fi mu mbir mu am dañ ko war a delloo ci yàlla. dëgg la dañ ko jël askan la ko askan wala nit. dëgg la te fekk yàlla mooy wane boppam comme ni nga ko waxee am nu solo ñu bëgg barkeluwaat ci. baatu laa ilaha illallah baatu laa ilaha illallah. waaw ànd ak ak cee ñu gën ko xam ci Cheikh Ahmada Tidiane. Cheikh Tidiane Dara ci Dramé macha allah kon ñu bàyyi la déggewaat barkeluwaat ci zikrullah muy laa ilaha illallah tafaddal mashkura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 kenn la te kennal gi kenn xëccoo ko moom lu ko neex la ciy def lu ko neex la ciy dogal su dogalee amul kenn ku naan limaada faal waahidun fi zaatihi wa sifaatihi mu ngoog wa asmaihi wa afaalihi mu ngoog Cheikh Bakri dégg donc kenn la ci melokaanam ci dogalam ci jëfam ci melam ci lépp kon macha allah Cheikh Bakri ñu ñëw ci cheikhul islam. dëgg la li nga xamante ni tey moom moo indi bi yëpp. dëgg la. liggéey bi nga xamante ni sumb na ko. jàmbaar ju mag ci am rek. Mm. ñu doyloo ko. moom cheikhul islam. waaw dëgg-dëgg maa ngi lay santaat di la gërëm cheikhul islam Maulana Alhaji Ibrahim Niass mi nga xam ne mooy woy juru xalifa bu tedd bii moom. mbiram yemina mbiram magna waye déglu ko mu wax dara ci bopam mune hamaltu sirra xaatimil wilaya jamaatu bayna zawqi wa diraya mune man cheikh al islam al-haji alhaaji ibrahima Niass yenu naa mbootum ci motali wilayatu gi te mooy cheikh na ahmada tidiane mbotum cheikh na ahmada tidiane mi mako yenu man Baye ma yori mbotu mbootu cheikh na ahmada tidiane xana kon yorna mbotum yenentu bi ndax cheikh na ahmada tidiane radiyallahu anhu فقيه النظيف nee مقامه لا يدريه إلا محمد له في محمدية خير وقفتي cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu li ko yàlla may kenn xamu ko kudut yonentu yàlla muhammad te itam yegg na ci biir mbóoti yonentu yàlla muhammad foo xam ne benn góor yàlla mosu faa yegg moom cheikh na Ahmed Tidiane dem ba ne laa yashrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun aadama ila nafxi fi suur amul benn waliyu yàlla buy naan ak leer mbaa mu nàndal ko keneen te leeram gi bàyyi ko wul ci sama géej gi man Cheikh Sidi Ahmed Tidiane depuis bi mu bindee aadam ba bufte di wol bàyyi nag mu ne Cheikh na Ahmed Tidiane moomu nag man alaaji Ibrahima Niass maa yenu mbóotam mais yenuwuma mbóot mi rek ci ay léebaki lu ponde waaye jamaatu bayna zawqi wa boole naa diggante mos ak xam ñi nga xam ne dañuy mos te ilmu zawq mooy lan xam-xam bi nga xam ne moom la yàlla di jagleel góor yàlla yi nga xam ne nekkul lu ñuy misaal nit dang koy dégg nga lakinnahu biduni zawqin maduri wa zawqu yugni fihi an muabbari dégg nga mbóot moomu nga xam ne mooy al ilmu laduni mbóot moomu nga xam ne moo di al ilmul wahbi nga xam ne moom la yàlla mayoon jaamam ba ñu wax xadir موم لا يالا ماي yonent yu تيدي موم لا ماي may موم لا مايون سيدنا علي بن ali طالب بام talib فغ دن بي نان dënn bi naan inna haahuna uluman law wajadtu خم xamala xam-xam a ngi fii ci sama keesu dënn bi man ali ibn abi talib yellante kon ma gis ko ko خم ba ma jox ko موم xam waye ak dirayatu muy xam-xam bo xamne itam dang koy jàng xam ko da koy def da koy riwaaya ba pare boo ko defee riwaaya mu jural la diraaya nee na lii la boole anshadani lisaanu xaalil jaari taxaddusan bi nafaxaatil baari imtala al xawdu wa qaala qatni mahlan ruwaydan qad malata batni mu ne eh, maanaa baatu qat ci muqaddimal kokkiya ak ci alfi ibnu malik qat day firi doy na léegi nag bayt bi shawahid la ci naxwu ñu ne mu ne nag imtala al xawdu mbalkama fees na del wa mbalka ma nee na xat nii xat nii doyal naa amatuma fu ma def ndox duy naa barembat moom bàyyi nag mu misaale boppam mbalka moomu maanaam may yi ko yàlla may ak maqaama yi ko may ak maratib yi mu ko may anwaar yeeg ulum yeeg asraar yi daje ci moom ak xaqaayiq moom lay junj mbalkami mu ne mbalkami nag fees na dell ak i xam-xam ak i leer ak i sekkere ak mbaax ak wilaaya ak i ba mbalka maa ngi naan xat nii fees naa dell amatuma fu ma def mahlan ndànk waay ruwayda ndànk waay qad malata batni sama biir fees na man mbalka mi léegi nag loolu benn bés ca jamono yañ koy tabaxal jumaam ju jëkk ja génn góor gu baax nee na ma toog nañ ba yàgg rek bàyyi dal di binni ba mu binnee mu ne ah mbalka mi fees na dell te ndox mi neex na lool te sedd na guy waaye nag bu ko nag yi ci kër gi ñëwul naan koo baye ca àll ba dana ñëw naan ko waaye ndox mi faw ñu naan ko loola nag góor ga nee na ñu dem di dem ba yàgg mu daldi di gis muritani bab bi ku ñëw naar yu xees pecc sëti cheikh mahamadul xaafaz al alawi sëti saydi mawlud vaal sëti baddi sëti mouhamad vaal bun baaba ñi doonoon usulu tariqa bi ñoom ñëpp ñu wëlbati ku ñëw jaayanteeg baay cheykhaani ba mu ñëwee sax naan saddaqtu bil faydi mus ataytu walam yunkir li faydika indi dëhra gayru shaqi te cheykhaani kan moo ko jur ahmad tulba mouhamad tulba mouhamad tulba ku ko jur cheikh ahmadou cheikh ahmadou ku ko jur cheikh mahamadul haafaz al alawi mi jëlee ci cheikh na tijaani moo jàkkaarloog bàyyi naan ko alasqi aw maqa amsa shiddatal wamaqi min kaasi